ngeeru kër burka flyer, laa yor doy na waa dal naa ci xale bi daf may jombal leeg mu suba jaaxal ma di xiiru doon rabu àll amee ah, gars yi wii bi lu mu joxe tey nag. waaw waaye wii bi joxewul dara tey dafa xaw a yéex de. billaay billaay wii booy tey wii bi comme mbaam. moo paa bi dañ koy wax. loolu seen yoon ko parce que sama tonton la. waaye paa daal baaxul. paa bi ko moo sagal boppam parce que moom moom sagalul kenn paa ñu may ko ba ñëw toog si bu yéen daal moom sóoratul maandu da ko rek jàng waaye amul maandu moo ko def yow lay borom mbaxana bi ba yow barki dem ci guddi fi la la fekk kenn xamul lo doon seetaan e boy dàquma len fi boy dakh len fi leg fo ngeen ko bëgg a boy man ak fi ñu ndox amu fa de sama ganaar yu bees ngeen gis nak mo ngeen teg bët mais nañ len ku ko sàcc naa sàcc sa lu bon est ce que ngeen ma wa ba pare sama affichage parce que yeen boy, sey eh eh yow xale bu jigen bi yow xanaa amo lo wara def yow nga tok ci gor ñi ni ñu sànnis la ni ha xam li ay lay jur dekk bi dañ cee wara wax ba ba pare seeni bagage yi parce que yeen boy li ngeen nekké dañ leen ci bayyi quoi ha may xal na ba ben mus xoti ko ci ku ko ci xoti na xot sa lu bon et je le mets ici nak respect ken yaru leen quoi yeen boy ha baxna yeen il faut mo wax commandant mu jëg ci yeen quoi oui na ngeen a ma fekkal naa ko sa yaay. lii doom day paa bi dal na la. ah doom ci génnee sa bopp nii. paa kay ñun ñëpp ñëpp la daal. déet paa bi kay yow kay li la yàgg yëg ko kenn ak boppam bu ñaaw bi. ah paa bi kay ñun ñëpp la waxaat loo ci génnee sa bopp noonu tamit. ah paa bi daal ñëpp la wax. waa Fallé wu paa bi daa mel mujj a fay wi fi sax de. waaw bi kay dafa mel ne fay na wi fi. Ah, man maa ngi ñëw jug njaax dem fi beneen wi fi xool. déedéet waay Balla bu rasu. ah nañ dem booy nañ dem kii dafa soxor ñaar vrai bi. mais sama gars alalam du ko bokk kenn kay. waaw kon amul ngaañ Fall bale ma seere ko rek. sama gars yi Ahmed. jàmm ci loolu la nekk waaye na nga am jàmm. waaye a toogaay bi. waaye toog mais xanaa gisoo leen li paa bi affiché lu mu bi fii fii ne dafa bëgg jëkkër pour doomam. baal lay teg. no man xa man damay dugg tànn sama sang. waaw dara damay sànni sama mbaal de. loo ko jëlee rek yow man man ma oo ma pion ay leen. donc rek kon nag kon. yow léegi wuy ma.

yow wa deug deug deug waaw bal nga wax almasan ma jindi ci warga bolo ko sama sukar gi ma dentone demba ataaya ci touti saa wuy ma tay yi maçon gi dafa dëgër de sama loxo bi yàqu na mante presse yoruma ko waaw bul wax loolu lu leen raaj waaw wuy ma ma tegal alaykum père eh, eh. boy yow boy yow kenn yarula la ah? eh, père lan la gay eh boy kenn yarula la bu so bay ni ko ñu nuy nuyu dong la nga dama lay nuy kasse eh boy si xuma yow nuyoo du hmm. xam nga pa bi dekk fi paa ban paa almaa bi. waaye bi soof bi rek. day soof lan def. paa bi daal yow. waaw doom ji daal la ma koy eh, na lu ko raw. paa bi ñemewu ko. wuyu ma ma wax la li paa bi. doom jooju mel ne waaye a raasoo. waaw na ko affiche nee na war a doom ji jëkkër. Oh. naa ne man aw ma saas dox. xaalis waaye man moom xam naa ne soo moom tuuti weccet rek damay dem. doono. bul base si loolu. paa jaay preg la. Ah, ah, yooyu la gëm. ah sama xale bëgg daal de. lan laa kii ñëwul xanju si kawam. waaw xam loolu de man naa xam ñu def. waaw tey ba ngay dem école gis naa la yaa ngi sol benn bu rafet ak benn jean boobu dama koy jox. coolul coolul waaw waxuma soo ko gisee bàyyi nga wax ko na ma àll caleçon bi ak kii survêtement bi. waaw ci jàpp rek Mounass Ndiaye nga wax ko bàyyi na may tuuti xoolal tuuti pat ci ci brosse rek xam nga. xoolal yoruma jàpp ci rek xoolal sax sama gémmiñ fi mu toll nii xaw naa xeeñ xoolal gis na maa ngi xet sax nii ma xaw brosse xoolal wuyu Euh, Serigne Bass wax ko na ma aal tuusi. sa waay muy ma xoolal uus wax ko bàyyi na ma aal kawas yi na ma aal kawas yi na si jàpp. waaye sa waay yow yow billaay xoolal fiis bàyyi defal li ma la wax. yow booy yow. bu xoolal jàpp ci. mais dara waaw waaw léppay leer man dama koy yëg rek xam ne yow moom xam nga. yaa ma xam eh xoolal demal ci li ma la wax gaaw xoolal demal demal ay rek. Eh. waay waay waay sama affaire bi bëgg a leer de. cey. waay laay laay cey yàlla. affaire bi man nekkuma fi pour xuloo gaañ dama gis affice bi si buntu gaale bi ngay wute sa doom di jëkkër te booy bi gis naa ko yàgg naa ko bëgg ndax moo am ma ñëw di sànni sama mbaal doom. booy yow sama doom bu bëggee ku ko raxas dàllam bokkoo. waaye père yaa ngi may xañ. booy waaye eh, booy xam loo bëgg wax ji dafa gudd gàtt ci biti. ay père naa génn eh, bi sax ngay am looy. booy ci biti. yow euh, père maa ngi du bon di ah mal éduqué kenn yoru leen. maa yow ci mbedd mi père. eh maa ngi eh bu soxlaa ay tëbal. père yow bul génn guddi si biti. non père yow sa néegu kañ la nga yor nii. kóor ah, kenn yoru leen quoi. kooma kooma non non franchement dëkk bi mais xool booy bi li ma def xool ko. yow booy dañoo rew kenn yoru leen ñii la seen doom yi da ngeen leen jël bàyyi leen ci mbedd mi ñuy tambambaalu mel ni ay bëy yu réer doom dañ koy yar. xale dañ koy yàgg mais non. moo xam li neex ci mag gone gi laa bëgg ndax na ma neexal xale bi laa bëgg mooy dal samay jaanu biir xale bi laa bëgg Alaykoum salam. Eh, ça va, jeune homme Ça va bien Et les activités Ça va bien Ah, naka jàmm ji naka xéwal yi euh, ana yaay papa et maman, ñëpp si jàmm eh jeune homme ça va bien ça va bien merci toogal toogal toogal ah ouais, on nga dëgg de yow de boy. ku la yar. Euh, man sama papa sama yaay. soo leen ku nekk juróom fukk ak juróom ñaar. Uh-huh. booy sa papa yar na la. ok merci bés bi dafa rafet. billaay. billaay pourtant maa ngi ah. la ma ko joxee sama benn xarit tubaab. Mm-hmm. mais boo yow téye boo yow booy booy booy yow franchement booy bu yaru nga. yow dafa dëgg ñu fi jaar léegi. am booy def mujj ko. <laughs> booy bi na ma lu mel ne dina xeme. baal ko rek ah baal ko. Ah, fu mu na ko yar. waaye damaa gisoon na affichage si buntu kër bi Oke, euh, apa ma ñëw. ah ok affichage bi. ah, ah boo yow ma xamal la ñaar. am nga mille chance. <laughs> parce que da nga yaru. non merci te vraiment sa solo bi dafa correct. non merci sol nga sol bu correct. merci solo ay xotteeku génn sa awra ci biti. <laughs> léegi balaa ñuy commencé. dama yow dama lay may chance bu gën amul. dama lay woo ñëw xool xam yow nante oui pa. li neex ci xale bi laa bëgg ndax na ma neexal mel ni xale bi laa bëgg. ma fi ah xale bi la bëgg. moom moo may yëngu. Ah, ah ma princesse. ça va. mais yow def nii. Papa dama doon yii bébé di toj ndax li may waajal. bu sottee nga. wa mais booy yow booy yow nekkee totti ni jaaga de. booy yow. nekkete booy sa mugg gi yow da ngay. non dama doon saxaat dama doon. loo doon xool fii. non dama doon saxaat ah da nga doon saxaat non yow moom booy bu kii nga xam naa ne doo defi ñàkk fayda yooyu. waaw kii bi. dafa bëggoon euh, tenter chance am. paa kii. ah waaw kii kay. nag xam nga ni. waaw paa kii la. jàng nga de. loolu moom ban théorème la. xanaa xamoo xale 3 yi berger ñu mel. lay lay li li ah. yi de mokk man booy. ni koy gis ni jangan xam nga len jàng ba am bac mos a génn néeg. assez mooy xale capable coupable criminel. attends boy agresseur nga. non non même pas. non boy fekkee da nga agresser wax ko man duma xex sa tapette tapet la. mais tapette ya de xam nga lu bon. Eh. tapet bu noy tapet day. <laughs> non man dama dëggee sax. da yo boy yo boy ça se voit. léegi pour ñu commencer. xam nga duma may ku mel ci ay ya ma gëna xam. <laughs> wax dëgg ay critères. wax waaw critères yi eh. ba la ñoo commencer. yow est-ce que sa dox dëgër na. waaye man sama dox dëgër na ah may ma ñaari pas fii ma xool. merci merci mais booy yow jaay taar nga de. non même ah, ah mais booy. yaa ngi lakk dëkk bi de. non non lakk ma dara. ah lakkoo dara yor ma almet eh, loolu bëgg naa ko ndax sinon da ngeen indi feu de brousse. ndax <laughs> xam nga mooy loolu. en fait yow. du ngeen daanu yooyu noonu. daanu comme ay daanu gaañ gi rek yooyu. non même pas ñun duñ amun ay janj fóore da am ay janj fóore ak yooyu même pas. te defe naa ni yow yoroo feebar buy wàlle. non même pas man zirkaawu. zirkaawu. non tuberculose. ni obéla. ah kon booy yow dinañ defi test parce que feebar yooyu day wàlle. Euh. waaw sëqatum guddi gi nag. non non man émorito ma sax. te émorito. non non. Ah. waaw émorito moom boo kii yoon doo mën toogee nii. <laughs> waaw léegi xam nga lu ma bëgg. Mhm. doxaanal gone gi. ma doxaan ko waaw doxaan ko ma xool ndax yow booy ndax nga làmbin mais bébé Ramza dama la gis mel ne daa am lu fàq non non in English dëgg la wax booy kii nag di nga ko doxaan ci ah, ay olof ak kii English ko mais papa xam naa tey sa xol dina sedd sax ndax man eh. département anglais laa nekk ah bon ah ayca ayca ayca eh. ayca na ko daal oh, here self to never die that to the last day you're rambling to the Baltica is vice to you you the embargo is fact to you. Because oh, every second, every moment, every moment, every second, you inside my heart, heart. Because the memory is too fixed to you. That, oh, is an embargo to you. Formidable boy! Boy, for non my département anglais laa nekk mais ñun dañoo yóbbu Arabie Saoudite pour ñuy eggale foofu suñu jàng. Arabie Saoudite kañ la fa commencé anglais. non because yow fii sa jàng su élevé noonu. oui dañuy yóbbu Arabie Saoudite. yeah boy ay déggin li nga wax. Mm-hmm. jogging. yes yes father, yes. i am déggin. I ay kontaani. waaw. ajourné. non père. ak li nga fi làkk ci doomi anglais. boy i am déggin I kontaani ay yow ajourné ajourné boy. booy ajourning. ajourning. yow booy sa sañse gone gépp nga fi wax ay mbaq yu rëcc ay laxas wax ay muy wax ay mbaqi ay rombing ay mooy booy bébé booy bi yab na ma kii war naa toog sama fi wax ay mbaqi ak booy li fi wax yëpp booy bi sama costume Instagram franchement booy ba ne ay trompe fi di ma wax ay du kenn xamul n'importe quoi. waaw kii fekkee def laa yab mais yooyu sa bopp yaa ma yab. waaye déet waaye maa fii yow tamit ma princesse bu ma def nii. paa xoolal damaa toog may toj. xam nga man wooyee kii. woo woo du am naa la wutal koo xam ne du làkk ay ay mbàqiñ ay rombiñ ay waay ay waay ay waay ay waay ma princesse ay waay ay waay mooy toogal ma. procès bu ñëw sax moom mooy gagné.